مولانا الشيخ إبراهيم يس رضي الله عنه يويد كاشف الباس ين أحباب الشيخ إبراهيم رضي الله عنه باي مني وشروط شيخوختي علم صحيح وذوق صريح وهمة عالية <clears throat> وحالة مرضية وبصيرة نافذة والسر كله في صدق المريد فهو شيخه الحقيقي انتهى مولانا cheikh ibrahima nettali na ci waxi borom xam-xam yi mu ne sartaay nekk sëriñ mooy xam-xam bu wér ak mos yàlla bu bir ak xam-xamu zawk moom la ñuy wax mos xam-xamu mos yàlla mos xam-xamu yàlla ak itte ju kawe himmal aaliya ak mbiru melokaan buñ gërëm ak gis-gis bu fël bu fas mu ne mbóot mi yëpp nag mi ngi ciy dëggoog taalibe gi <coughs> kooku mooy sëriñam dëgg-dëgg intaha boo dëggoo rek daanaka dëggu bi mooy sa sëriñ dëgg-dëgg intaha jeex na wax jooju duma qaala baada kalaamin waalam ayyuha al ax anna dalila iradati llahi tabbika alwusul ilayhi wa itisaal bihi وصلتك للشيخ المربي إذ هو تعالى لا يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه من وخنا تميت غناو وخ bu ne na nga xam yow mbokk mi ne tegtalu ne yàlla dafa namm pour àggale la ci boppam mooy jokkale bi mu lay jokkale ak cheikhul murabbi ndax yàlla subhanahu wa taala du àggale jëm ci sëriñ si tarbiya lu may koo xam ne yàlla namm na mu agsi ci moom <coughs> àgg ci moom fala yasilu ilay illa man itasala bihim kenn du àgg ci yàlla lu may ku jokkoog ñi yàlla may ndigal ñuy xam le yàlla wala yaxjuba anhum illa man xajaba bihim du nëbbu du hiir kenn du may koo xam ne yàlla na mën a hiir ko ci boppam de سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا من loolu mooy baaxu yàlla ci li mas a woy ci jamono te yàlla du قال تاج الدين بن عطاء الله سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه انتهى من تدنا sell ak yàlla mi nga xam ne dafa tegtal ñeel wali yàlla yi lu may tegtal bi ko ñeel moom yàlla tegtal bi jëm ci moom rek moom la def tegtalu wali yàlla yi <coughs> qultu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass nee na qultu nee na ma ne wax na ne moo Cheikh Ibrahima bu waxee qultu rek dana wax kéemtaani jamono dana wax luy jëriñ àddina luy jëriñi alaxira منى وإذا عرفت منى وإذا عرفت ما تقدم عرفت يقينا وجوب طلب الشيخ التربية وما يلزمك من الآداب معه بعضه تقدم بنقل كلام المشايخ الأجلاء منه soo xamee li jiitu ci wax ji li mu waxagum danga xam yaqiin ne ci lu biir ne sàkku sëriñ bu lay tarbiyaal lu war la teggin yi nga xam ne moo war sa digganteeg moom tamit leen li jiitu na ci toxalu waxi boroom xam-xam yu tedd yi <clears throat> wala taqu wala taqul zahabal rijaalul kummal faqad taqaddama an inqitaa madadu nabi sallallahu alayhi wa sallam laa yaquluhu muminun wala awliyaaw warasatul lambiyaa mu ne nag bul wax mukk ne góor yàlla yu mat yi dem nañ déedéet mu ne jiitaloon nañ ci wax ne <clears throat> yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam tëbboom du daggu mukk ci xeetam ku gëm yàlla kuy wëlliw yàlla doo wax loolu ndax wëlliw yàlla yi ñoom ñoo doon yonent yi فالتربية من الله إلى خلقه لا تنقطع أبد الآباد وأنا شيخ إبراهيم اسمه سو بجم تي يالا تربيو bi yàlla di tarbiya jaamam yi ñu jëm ci moom xam ko jege ko loolu du dog mukk ba ba pencam yàlla ba faw fa kaana fi sadri la wali yursilu lambiya bi tarbiyati wal irshadi mu ne yàlla subhanahu wa taala ci maas gu njëkk ga daf daan yónni yonantu yi ak lëmbiyaaw mursaliin ñu ñëw di tarbiya ñi ñi di leen jubal jëmee leen ci yàlla kullama waqaat fatratun rafa bi irsaali nabiyin mu ne waxtu fatra amee digg digg dog dog boo xam ne ni yonantu ñëwatut mu yëkkati jamono boobu indi beneen yonantu ila an xatama risalata bi irsaali xaatimi al anbiyaai wa imaami al mursalina sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag yàlla dañu di yónni ay yonantu di tofal yonantu gannaaw yonantu bee mu indi ki nga xam ne nag moo kaste ak yonantu ci boppam mooy ki nga xam ne mooy kaste yonantu yi mooy ilimaani mboolem ñu yónni muy suñ sangu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa saara yabaasu bi tarbiyati al aarifina ulil izni al mu ne gannaaw yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam nag am nga yonantu amatut mu ne yàlla mujji nag di yónni ay aarifina billah yoo xam ne dañoo am isnu xaas ndigal spécial ci yàlla pour tarbiya jaamam yi <clears throat> fa kullu ma waqaat fatratun rafaaha bi baaxi waliin kaamilin mursidin mu ne waxtu bu fatra jeexee rek mu yëkkati fatra bobu indi beneen yu waliyu bu boo xam ne nii dafay jubale <clears throat> fal fatratu fatrataani bàyyi mu ne fatra ñaar la fatratu mooy dog dog comme yàlla yoonu yonantu <clears throat> dem moom yonantu boobu ñu toog diggante bu yàgg wala diit as ndiit soo xam ne yonantu amut ci jamono jooju ba bay yonantu di ñëwaatee loolu la ñuy wax fatratu wala mu yónni kaamilu asri ku aji mati jamono mu ñëw faddu mu toog diit kaamilu asri feeñul ba jëmmi jamono mu indiaat ko moom yàlla <clears throat> bàyyi mu ne fatratu ñaar la fatratu kufrin turfaaw bi irsaali nabiyin wa fatratu islaamin turfaaw bi baasi cheikhin murabbin mu ne fatra kéeféer yàlla daf ko yëkkatee ci yónni yonantu mooy fatraak ñaareel bi nag mooy fatraat lislaam <clears throat> moom yàlla daf ko yëkkatee ci yebal yónni dégg nga sëriñ boo xam ne dafay tarbiya way dee yu siiru xadis mu ne xadis bii may wax si moom lay junju yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ulamaa ummati ka anbiyaay bani israil borom xam-xam yi sama xeet ñu ngi mel nii yonantu bani israila yi wa xadis inna allah yabaasu fi kulli ummatin mujaddidan man ak xadis boobu yàlla wax ne yon saa sama wax ne yàlla dana yónni ci xeet wu nekk ku dafa tëj diit yeesal jamono jooju ñu wax mujaddid ilax ba xadis al xadis mu ne ilax mooy bam jeex ba xadis ba jeex wa yurwa mu ne def na solo maanaam solo nañ solo nañ كان الأرض لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكت من باي نس من نترن صلى ني سوف سي بيونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم جن ادنا دفا جوي موم سوف جوي جوي جوي جوي جوي فقال موخ موم سوف يا فقال موخ موم سوف الهي وسيدي بقيت لا يمشي على ظهري نبي الى يوم القيامه mu jooy ne yow sama borom yow sama sang yàlla des naa fi mu ne nii yonantu dootu dox ci sama kaw ba pencam yàlla di jooy di jooy فأوحى الله تعالى إليها سأجعل على ظهرك من هذه الأمة من قلوبهم على قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا أخليك منهم إلى يوم القيامة إلى الحديث جعلنا الله من أكابرهم آمين وأجلهم مقاما آمين تجاه صفوة خلقه صلى الله عليه وسلم آمين وعلى آخر هذا الفصل والله الموفق للصواب وإليه سبحانه المرجع والمعاب من بيم جوي mu jooyee وحي <clears throat> daal di wax yu ci moom ne ko dinaa def ci sa ndigg dinaa def ci ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa bii ñoo xam ne seeni xol dafay nekk ci xol yi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam du ma la féexal mukk ci ñoom ba pencam yàlla du vidd mukk ba pencam yàlla ba xadis ba jeex ilax alxadis ba xadis ba jeex yaa bàyyi nag ñaar mu ne yàlla yàlla def boole ñu ci gaay ñoo ñu nga xam ne dañuy yàlla daf leen di feesalee xol yonent yi ci kaw suuf yàlla nañu yàlla def boole ñu ci ñi ca gën mag ñi ca gën a kawe daraja ci maqaama fa yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy tànneefu mbindeefu yàlla sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ibrahima mën a buntu bii nag te mooy buntu bi mu jàng léegi <coughs> mooy juróom-ñetteelu buntu bi ci Kaashiful Ilbaas mu ne aaxiru haadal fasli mooy bunt bi mujj ci ci faslu bi yàlla nag mooy maye tawfiq mooy maye njub ngi jëm ci moom subhaanahu تيالا موي ويرو واي موي دلتلو واي بي الفصل الثالث وهو الفصل التاسع من فصول الكتاب في تحقيق رؤية التي تدعي الرجال وما قال العلماء في رؤية ذات الباري جل وعلا وانا سيبراه ناس من نيونا تي نيتيلي بونت بي نك من بي فصل بي نك موي جروم نيتيلي فصل بي تي تيري بي دي كاشف الباس تي لان لاي وخ dafay wax ci taxqiiqu ruya mooy dëggal gis yàlla bi nga xam ne góor yàlla yaa ngi koy oote ak boroom xam-xam yi lan lañuy wax ci gis jëmm yàlla ju tedd ji nga xam ne moo yett mbindaafoon nii kawe na moom yàlla màgg na moom yàlla faaquulu bàyyi mu ne maa ngi wax ne wa billahi tawfiq wa huwa alhaadi bi man ni ila sawaay tariq mu ne maa ngi sàkku tawfiq ci yàlla di sukkandiku ci moom yàlla mooy jubale ci xéewalam ci mayam jëm ci yoonu njub kocc اعلم أن القوم يتكلمون بألفاظ في سلاحهم ليست على ظاهرها ولا يعرفها إلا من شرب من مشاربهم وربما أنكر أعمى بصيرة المجزوم المحروم ربما أنكرها أعمى بصيرة المحروم نور التصديق ويستحيلون صدق ما يدعون وربما أنكروا المنكر بحجج داحضة حيث لم يهتدي إلى الشيء المنكر فيعرف ما يدفعه به ويا سمع أحدا يدعي مشاهدة الحق يقول قال الله تعالى لا تدركه الأبصار بي مولانا شيخ إبراهيم رضي الله عنه منه na nga xam ne gaa ñi te mooy sufiyànke yi góor yàlla yi dañuy ay waxin ay baati ay kàddu ci seeni waxin ci islaahaati suufiya yoo xam ne nii zaahir ba nammut loolu wax ji dafa am leneen lu mu wëndu mu ne kenn du ko xam nag lu may ku naan ci seen naanu waaye ñoom góor yàlla ku ci naanu rek mënoo dégg seen wax mënoo koo xam mu ne amaan na sax dégg nga ki nga xam ne ba ci xolam dafa fay gisut yàlla nattu ko mu inkaar dégg moom dañ koo xañ leeru dëggu dëggal dégg nga mu inkaar lañu oote ñoom wëllu yàlla yooyu mu ne amaan na sax munkiru bi inkaar indi ay lay dégg yoo xam ne nii eh, dégg moom du si jub sax ba xam ko su ko kenn déggee muy oote na gis na yàlla seede na yàlla muy indi ay lay naan laa tudriku labsaaru yàlla wax na ne bët yi duñ ko jot duñ ko gis ci suratul anaam wal mushaahidu laa yaddayi idraaka wala yara labsaara wala yara siwa wa kullu man yara siwa mashhuuduhu walaw daratan يعتقده هو لم ينفي الشريك فمدعي المشاهدة هو أتم الناس اعتقادا أن لا تدركه الأبصار वह यदरकुलबसारा Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu mu ne ki nga xam ne dafa àgg ci gis yàlla seede yàlla seede jëmm yàlla ji du oote ootewut ne bët day gis yàlla ootewut ne bët bi day jot yàlla gisut sax moom bës bis bët ci boppam gisut bës bët gisut lu dul loolu dut yàlla gisut ko dégg nga وكل من يرى سوى مشهوده ولو ذرة يعتقده ولم ينفي الشريك دنگا كيف كو خمنا ني يعني جيس لدول لنغي سيدرك يو داقو سب عجي بوكالك فمدعي المشاهد هو أتم الناس اعتقادا أن لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ني خمنا فيو تجيس يالا سيدر يالا كوكو مو جنا مات ني خمنا جمنا ني bëtu zahir du gis yàlla mukk laa dina du ko jot rubbama ahtajal munkiru bi qawli taala lan taraani al aaya mu ne amaana tam munkir bi kii weddi ne yàlla duñ ko gis di layoo li yàlla wax ci alquran ne lan taraani lam tontu yonte yàlla musaa ne ko dooma gis balaaya ji jeex waalam anna qawlu qawlahu lan tara qawlahu taraani wa qawlu fa sawfa taraani laa muaaradata baynahuma fafham bàyyi mu ne nga xam nag ne doo ma gis baat bi yàlla wax ne doo ma gis ak bi mu wax ne xal si nga maa gis mu ne fénkaloo amut ci seen diggante na nga dégg li ma wax nag waalam an allah يجزب عبده إذا تقرب إليه بنوافل الخير حتى أحبه جذبا لا يعرف العبد فيه نفسه wala غيره ولا أوله ولا آخره wala juzaahu wala kullahu mu ne Mawlana Cheikh Ibrahim mu ne na nga xam ne yàlla dafay jës bu jaam bi dafay ñot di jaam bi ñot di xolom jegeel ko boppam moom yàlla ci jëf yu baax yi muy def di julli di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di def lu baax ba yàlla mujj bëgg ko bu ko yàlla bëggee nag daf koy jës bu xëcc ko xëcc boo xam ne nii jaam bi <clears throat> dootut xam boppam dootul xam lu dul moom dootul xammee njëlbeenam dootul xam mujjam dootul xam lu xaaj du jugee ci moom dootoo xam léppam yaxiibu an suudi wa yastahliku fi shiddati istihdaari mawlaahu jalla wa dafay faddu da nga walis li muy seede dafay jël léppam jox ko yàlla teew ci kanami boromam mu màgg mu gépp teew keew teew gu tar bu dëgër a dëgër a dëgër dëgër dëgër loolu mooy mbóot mi yàlla di defal gaa yi nga xam ne daf leen a xëcc jëmee leen ci moom fa yushaahidu fi dalika alxaal xadratan qabla dunia wa baada al axirati wa qabla al qabli wa baada al baadi laysa la awalun wala axirun wala fawqun wala taxtun wala yaminun wala shamalun wala kayfun wala inhisaarun wala ismun wala sifatun allahu akbar Mawlana Cheikh Ibrahim mu ne <clears throat> jaam bi nag buy dox jëm ci yàlla ba yàlla jël ko nag xëcc ko ci boppam nag tàggale koog sagoom tàggale koog boppam bopp moom amatut dara amatut mu ne boo àggee ci foofu nag dafay seede dafay ne ci xaal boo xam ne dafay seede benn pays te mooy pays yàlla bi mooy pays boo xam ne moo jiitu àddina ma ngi ca gannaaw àllaaxira àddina dana jeex àllaaxira jeex pays yàlla bi des fi wa qablal qabli lu jiitu jiitu sax pays boobu moo la jiitu te mooy yàlla wa baadal baadi ak gannaaw la ca gannaaw gannaaw lépp yàlla ëpp loolu yàlla du jeex yàlla pays boobu amut njëlbeen amut tàmbalikaay amut mujj amut kaw amut suuf amut ndeyjoor amut càmmooy amut naka amut tënk takk amut tur amut foofu melo amut foofu ولا مقابلة ولا مدابرة ولا اتصال ولا انفصال بي يالا بي فوف امود جاكارلو امود وانانتي غناو امود جوكو امود فاتي ولا داخل ولا خارج امود لو دوغ فوفو امود لو غيني فوفو ولا حس ولا ادراك امود ييك ييك ييك ييك امود فوفو ولا ادراك جوت امود فوفو ولا حلول واتش امود فوفو ولا اتحاد بولي امود فوفو في المحب wa fi faniyal ma muhib fii mahbubihi ki nga xam ne moo bëgg te mooy jaam bi moo bëgg yàlla jeex na takk takk takk takk takk takk ci yàlla ba dara desatu fa ku may soppeem bi te mooy yàlla kaw amatut suuf amut kanam amut gannaaw amut tur amut melo amut jëkkër amut jabar amut yaay amut baay amut sëriñ amut yonantu amut wëliyu amut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 wa adabu fi dalika ma allahi kaamilun mu nekk moom maqaama bi nag ku ci àgg mu ne bu waxee dégg nga dana am wax yu génnee ci moom yoo xam ne koo xam ne amoo zawq ci yàlla xamoo yàlla mosoo yàlla mosoo xam-xamu yàlla dafay gis ne kii li muy woote lu jomb la dégg nga fekk moom mi ànd ak teggin dégg nga bu mat bu ànd ak yàlla ndax moom nekkatu fa ولذلك قال أبو مدين الغوص فلا تنم السكران فيها لسكره فقد رفع التكليف في سكرنا أنا فلا تلوم السكران في حال سكره فقد رفع التكليف في سكرنا عنا مطخ tax امام ابو مدين الغوص ولي al gawsu wëllu لون وين بن وين jamonoom bul yedd ki nga xam ne dafa màndi ci yàlla waxtu mu màndee ci yàlla mu ne waxtu wi jaam bi màndee ci yàlla toggee fi yëkkati nañ ko ci moom dégg nga buñ màndee ñun ci yàlla rek lépp luy toggee fu sharia yàlla teggil nañu ko dara nekkatu fokk ma yàlla waaye buñ màndee la wax wala bid wala bidaata shay'an wala wala bidaata shay'an muhaalan id huwa أدرى بمراد الحق جل ولا وادي أوتي ود بدا دنغا ندخ مم خم نم نم يالا ممعقبي وصاحب هذا المقام لا كلام له ولا عبارة إذ قد انقطعت العبارة فهذا الذي أشرنا إليه هي الرؤية التي تدعي الرجال باي منير waa ji yi nga xam ne mooy borom maqaama bi bàgg na ci pay yàlla bi nag mu ne kooku amutul wax amul lu muy wax amutul lu muy junju ndax junju ci boppam ay baara ci boppam dafa dog mu nekk kii nag lii ma wax nii moom laa junj ci sama ñeel benn téere bi ci bunt bi may wax nii nii mooy juróom-ñeenteelu bunt bi ci Kaashiful Baas di wax ne mooy gis yàlla bi nga xam ne moom la góor yàlla yi di oote وقد تقدم من الآيات والأحاديث بما يدل على ذلك ما فيه غنية وكفاية من هناك أمنا أي آية يخمنا جيتنا كتير بي أك أي حديث ينتو صلى الله عليه وسلم يخمنا دين دليل في سك كي لما وخ دنگا كي آه، جسي الله وإن سلمنا تسليما جدليا أنهم يدعون رؤية الله فما الدعوة في الدنيا ولا في الآخرة ورؤية الله تعالى من جملة الممكنات على مذهب أهل السنة كما سيأتي في أنقال العلماء اللجلة وقوله لا تدرك الأبصار bàyyi mu ne su fekkee sax na dañoo nangu ne jébbale ne ci bunta weerante ne ñoom dañoo oote gis yàlla bàyyi mu ne oote wuñ ko ci àddina oote wuñ ko ci alaxira mu ne te gis yàlla subhanahu wa bokk na ci yi nga xam ne mën naa nekk ci mazhabu ahlu sunna comme ni mu xalee ñëw ci bu ñu boy indi ci téere buntu bii danaa toxal ay waxi borom xam-xam su boobaa danaa fa indi borom xam-xam yu tedd yooyu lan lañu wax ci luy dëggal ne gis yàlla mën na nekk ñoom mazhabu ahlu sunna wa qawluhu laa tudriku al-absaar wax ji yàlla wax nag ne ne bët yi duñ ko gis ci suratul anaam umum umumun yaqbalu taxsiis wa karaamatul wali tax al-ulum al-qat'iyati mu wax ji yàlla wax ne Eh, bët mënu ko jis mu ne wax la joo xam ne wax juñ matale la waaye nangu na jagle ndax karaama baax wali yàlla yi dégg nga dañ leen di jagleel ay xam-xam yoo xam ne xam yu yu yu xat yi dogu la fa kayfa bil umum zan nii rawat na nag eh, ci mataleeg loo xam ne njort la wa ida tamahada hada fa fa naati bima qaala ulama wa nuqaddimu kalaam al fuqaha qabla kalaam al aimati sufiyati mu ne su fekkee nag lii moom am na lal nañ lii waxtaan ci léegi nag xaaral ma indil leen ñu ngi indi waxi borom xam-xam yi fuqa fiq yi avant may indi waxi sufiyanke yi taqaddama wa <coughs> taqaddama kalaamul fuqaha wa nuqaddimu kalaamul fuqaha ñu ngi jiital waxi fuqaha yi qabla kalaam ay mat sufi laata may indi euh, waxi njiitu sufiyanke yi فقد قال بدر الدين العلامة ميار في شرحه على ابن عاشر ما نصه ومن الممكنات الجائزة عند أهل الحق رؤية المخلوق لمولانا جل وعلا على ما يليق به تبارك وتعالى من غير جهة ولا جرمية ولا تحيز لأنه تعالى موجود وكل موجود يصح أن أن يرى بالبصر mu ne boroom xam-xam yi fiq bi muy badruddin alaama mayaara wax na ci sara bi sara ibnu asir loo xam ne yàq baa ngi nii mu ne bokk na ci yi mën a nekk te daggan mooy mooy mbindeef yi mën nañoo gis seen borom muy yàlla subhanahu wa taala mu kayu mu màgg mi ci nam dëppoog moom yàlla tabaraka wa taala ci lu dul ci lu dul wetu ci lu uh, jubluwaay تلدود والله تلدود تحيوس تنك ولا دارا ولا فيكو دنجا نخيالا لو أملا تلف لو أمرك ويرنا من من من من من سنكو جيسي أكبت واستدعاء رؤيا لمقابلة المرء والجهة له وتوسط بين القرب جدا والبعد جدا إنما هو عادي يقبل التخلف وكما صح أن يعلم مولانا جل وعلا على ما يليق آه، بجلاله وعظمته من غير إحاطة فكذا يصح أن يرى جل وعلا بالبصر على ما يليق به تعالى وليست الرؤية بانبعاث شعاع يتصل بالمرء حتى يستحيل رؤيته جل وعلا لاستحالة اتصال الشعاع به تبارك وتعالى إذ لو كانت الرؤية باتصال الشعاع بالمرء لزم أن لا يرى الرأي إلا مقدار حدقته كيف وهو ينكشف للراعي في نظرة واحدة أضعاف ذاته أضعافا لا حصر لها بحيث يقطع أنه لا يمكن أن ينفصل منه الشعاع يتصل بأدنى شيء منها انتهى منه بلفظه من يتكتل إيه جهرك شوانا يلا من ننكو جس سبحانه وتعالى نخ mën nañ koo gis subhanahu wa taala du ci jàkkaarloo li ñu gis ak ci jubluwaay ak ci diggu doomu ak ci jege bu baax wala sori bu baax mu ne loolu lu lu lu la lu simple la dégg nangu na loolu mu ne comme ni mu wéree ne yàlla dañ ko war a xam subhaanahu wa taala ci dëppoog màggaayam ak ak dayoom ci du dut peeg ko mu ne noonu la wéree tamit ne yàlla mënees mënees na koo gis dégg nga ci gis-gis basar dégg nga ci nam dëppoo moom yàlla mu ne nag ru gis-gis boobu du bàyyi ko rek ci ceeñeer boo xam ne dafay jokkook dégg nga du gis-gis buy jokkoo buy jóge ci ceeñeer buy gis dégg nga ba mu jomb gis ko jëlla waala ngir jong jomb ak euh, ceeñeer ci moom tabaaraka taala mu ne su fekkoon ne euh, dégg nga gis-gis bi dafa aju ci dégg nga ceeñeer buy jokkook li ñuy gis kon dana war ne duñ aji gis yi du gis lu may euh, xefi bëtam rek mu ne waaye naka lay uññeeku ñeer aj gis yi ci benn gis-gis rek mu gis ay jëmm yu bëri bëri bëri bëri dégg nga ci loo xam ne mënu koo takk ci benn gis-gis boo xool nii rek gis li nga janoog yëpp dégg nga ndax du dagg ci yow mu ne ni noonu tamit ci yoon daal war nañoo mën a gis yàlla wax jooju jeex na ci kàddoom wa qaala alfaani kama fi الشنواني مختصر البخاري الفاني لقاني لقاني قال لقاني لقاني وحنا سرا الشنواني تي تنك بخار نينا ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحسار وقال في الإضاءة ورؤية الإله بالأبصار تجوز عند أهل الاستبصار من لقاني وحنا سرا da nga Shanwani ci muxtasar Buxaari yi nee na bokk na ci ne dañ koy gis moom yàlla ci ci bët lu waaye nag ci lu dut la ak lu dut tënk ku ñu wax na tamit ci li daane gis yàlla ci bët lu dagan la ci ñooñ gis gisi xol wa qaala cheikh al imaamu al qudwatu al humaamu saydi ahmad assaawi fi xaasiyatihi ala al ما نصه عند قوله تعالى لا تدركه الأبصار قال جلال أي لا تراه وهذا مخصوص برؤية المؤمنين لو في الآخرة لقوله تعالى وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من شيخ الإمام سرين بو ilimaan bi ñu wax dégg nga nga xam ne moom roy teef la ku sell la sang la sang bi ñu sama sang bi jëlaa lay nii loo xam ne mi ngi nassu nasu yax baa ngi nii ci bi muy firi wax yàlla subhanahu wa taala ne laa tudriku labsaar ne bët du ko jot gis ko mu ne jalaal wax na ne ay laa taraaw du ko gis mun lii nag luñ jagleel la ci gis ndax jagal gis yàlla dañ koo jagleel ñi gëm yàlla ci àllaaxira ngir yàlla wax ne wujuhun yawma naadira ba ay xarxaram yoo xam ne dañuy dañuy natax lool ilaa rabbiha naadira dañuy xool jëm ci seen borom ci suratu qiyaama وحديث الشيخين إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ak tegtaloo tamit xadiisu jànga cheikhaani te mooy buxaari ak ak muslim ñëw na ci xadiis yu ñu indi seen ñaari téere yooyu wér yoonu saa sama wax na ne da nga xadiis boobu ñëw na ci ñaari téere yi xadiis bi si yoonu saa sama daf ne da ngeen gis seen borom comme ni ngeen di gisee guddi layatul badar comme ni ngeen di gisee weer wi ci guddig badar dégg nga muy weerul tamaamum badru tamaam wa qila al muraadu min qawlihi laa tudriku al absaar jamu basarin wa huwa xaasatu nazar mu ne wax nañ tamit ne liñ namm ci laa tudriku al absaar du ko gis mooy jamu basar mooy jamoo booloo gis te mooy xaasatu basar mooy li nga xam ne mooy xef bi mooy xool ci bët bi loolu du gis yàlla ayul quwal basar mooy kattan bi bi xool ويطلق على العين نفسها من إطلاق الحال وإرادة المحل إلى أن قال قوله قيل المراد لك من يتم itam وقت حاله wax ci نمو نمو بربي من بي وقت جيخ بابا خم جو جيخ ba وعلى هذا فالنفي باق على عمومه فلا يحيط به بصر أحد أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة من سوبا داق بنك دفاي نك لو خمني دفاي دس دال dafay desal dara waaw ci matale ci umum ndax kenn du peeg bët mënta peeg yàlla du ci àddina du ci àllaaxira falaa yunaafi anal muminina yarawnahu fil aaxirati ne loolu du dàq ne ñi gëm yàlla dinañ gis ci àllaaxira laakin bilaa kayfin wala inhisaarin li wujudi adratin aqliya wa naqliya mu ne ngir ne eh, dañ ko gis waaye du nekk ci naka walla ci tënk eh, ci takk ngir ne am na ay tal yu xel ak yu toxal yu am أما النقلية فالكتاب والسنة والإجماع من أما دليل النقلية تموي تخري موي تيري على بي أك سنة صلى أك بولوك جليني والأخرية منها أن الله على قريته على استقرار الجبل من شي خلي على دفتن كجسم شي موسى دومجس وي سو دجوي سخي وهو جائز لولو دقن له wal mualliqu alal jaayis muallaqu alal jaayis jaayisun lépp luñ luñ aj lu jaayis lu dagan la wa minha law kaanat ruyatu mumtaniatan lamma sala musa إذ لا يجوز على النبي سؤاله المحال إذ هو جال ويستحيل على na ci li tegtal ne yàlla dañ koy gis tontu bi tamit loolu ñu ñee déggee ñu ngi ko war a déggee rek ñenn ñi waaye mooy ne mm, su fekkoon ne gis yàlla mënta nekk yàlla du duñ ko gis ni kon Moussa alayhi salaam du ko laaj yàlla ndax daganut ci yonantu mu laaj loo xam ne lu jomb la da nga ndax loolu réer la te jomb na ci yonantu mu réer wa minha an yuqaala allahu mawjudun wa kullu mawjudin yasixu an yuraa فالله يصح أن يرى خلافا للمعتزلة أو المرجية والخوارج من بكنا تكتري خليبتي na yàlla mën nañ ko gis mooy ne lépp luñ lu xam rek lu ñu mën a gis la kon yàlla wér na ne mënees na koo gis dégg nga loolu nag uutee naag gis-gis bii nag uutee naag moom waa mu'tazila ñoom dañ gëmuñ loolu ak marjiyaat yi ak xawaarij yi xaysu axaalu ruya ñoom dañoo jombal gis yàlla mustadilliina bi zaahiri haadihi laaya wa bi qawlihim ñoom dañoo tegtaloo ci zaahiri laaya bi ne laa tudriku l-absaar daal yàlla kenn du ko gis ak seen wax dañuy wax ne inna ruyata mu muqaabala watisaalu ashaatu basarraay bil mari mu ne gis dafay warlu waral jàkkaarloo ki ngay gis nga jàkkaarloog moom te su boobaa ceeñeeru sa bët dafa war a jàkkaarloog li ngay gis fa yalzamu an yakuna lil mari jisman wa taala allahu an jismeeti mu ne su boobaa li ñuy gis dafay war mu nekk yaram te yàlla màgg na walis nekk yaram warada kalaamuhum warada kalaamu bi ma alimta bi oo bi ana talaasum aadi laa aqli mu ne delloo wax jooju nag comme ni nga ko xamee ak it ne da nga wareef bi da nga lu lu aadi lu simple la waaye du la du ci xel waaye jusu taxaluful aada te uuteeg aada mën naa nekk intaha ثم قال الإمام الساوي بعد كلام وأما رؤية القلوب العارفين له في الدنيا بمعنى شهود القلب به في كل شيء foo jaayizun bal huwa matlabum wa gaayatu maqsudin wa manaaluhum mu ne imaamu saawi wax ci waxam jooju mu doon wax ba tey mu ne am maa gis biñ koy gis na ci ñoom aarif yi ne yi nga ci seen xol fi àddina mu ne maanaam seede yàlla ci seen xol dégg nga ci lépp loolu loolu lu dagan la loolu mooy seen càkkutéef te mooy seen dayu càkkutéef ak seen mébét xaala أنلنا مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب الأولياء تسارع mu ngi ñaan ci baytu baytu bii mu ne yàlla yàlla ñu may ak soppey gis la gis-gis bi nga xam ne te nga seen xol moom ci loolu la ñuy rawante qaala wa kada ru'yaahu fi lmanaami intaha minhu bi lafdi moom saahiba tey mu ne kadalika ni ko noonu tamit gis ko moom yàlla ci ci nelaw de nga loolu tam de nga lu dagan la jeex na wax ji wa qala cheikh saydi muhtar al kunti maana wala na cheikh ibrahim mu ne eh saydi muhtar al kunti wala yàlla bu mag la wax na mu lim wax mi ngi ni yakh ba ngi ni mu di ko indi fal anbiya wal awliya yarawna allah qabla kulli cheyin والصالحون يرون الله في كل شيء والمؤمنون يرون الله بعد كل شيء mu ne moom Sidi Muxtaar Kunti yi nee na yonent yi ak wali yàlla yi dañu gis yàlla ci lépp lëf ñu saalihi ne ñu baax ñi nag ñoom dañu gis yàlla eh, déedéet yonent yi ak wali yi dañu gis yàlla lu jiitu lépp la balaa ñuy gis dara daal ñoom yàlla lañu gis ba pare soo ko gis lëf eh, dégg nga saalihu na nag ñoom ñu baax ñi ñoom dañuy gis yàlla ci lépp lëf wal muminuna yarawna laa baada kulli cheyin mu ne ñi gëm yàlla ñoom dañuy gis yëf yi ba pare su ko gis yàlla wala ya qaala ibnu ataillah man raa lakwaana walam yara allah qablaha wa baadaha wa fiha faqad awaso wujudu lanwaari mu ne loo tax ibnu ataillah wax ne képp ku gis mbindaafoon yi te gisoo yàlla lu jiitu nga koy gis wala gannaaw boo gisee wala ci biir bi nga koy gis mu ne kooku dana jafe ci moom mukk mu am lool dana jafe ci moom lool lool lool mu am leer ay leer fa alladina yadharu lahum qabla kulli mawjudin hum alladina yastadiluna bi ala xalqihi dégg nga yastadiluna bi ala xalqihi mu ñi nga xam dañuy gis yàlla mu leen di feeñu lu jiitu mbindaafoo ni ñooñu la ñuy tegtaloo jëm ci mbindeefam yi walladina yazharu lahum fi kulli daahirin fa hum alladina afnaw almawjudaati fi mushahadatihi ñi nga xam ne dañuy gis yàlla ci lépp lu feeñ ñoom ñoo ñoo labal mbindeefoo ni ci li ñuy seede ci yàlla والذين يظهر لهم بعد رؤية خلقه فهم الذين يستدلون بآثار قدرته على وجوده وكمال صفاته ñi nga xam ne dañuy gis yàlla gannaaw mbindee fi ñoom ñooy tegtaloo ci jeexitalu kattanu yàlla ci amam ci mbindeefam yi ak matak melokaanam yi moom yàlla qaala al imaamu raasi الظاهر والباطن اسمان مقترنان لا يصح اطلاقهما الا على الله تعالى من امام رازي وحنا zahir ak baatin ñaari tur la yoo xam ne dañoo lënkaloo taqoo wérut waruñ koo wérut ñu boyal ko ci ñaar yooyu lu may ci yàlla subhanahu wa taala fa huwa zahiru fi wujudi wa majdihi wal baatinu bi nafi tahdidi wal kayfiyati yàlla mooy li feeñ ci mbindeefam yi ak màggaayam yàlla mooy li nëbbu ci dàq nattale ak ak ak ak ak ak naka waqad fassarahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi tafsirin wa ahsanu mimma fassara bi mu ne yoon saa sallam nag firi na ko ci firin boo xam ne moo gën a rafet ci firin yi ñu ko firee wa qawluhu anta zaahiru fa laysa qablaka anta zaahiru fa laysa fawqaka shay'un wa anta al-baatinu fa laysa dunaka shay'un anta min al kawakib mu ne saa sam ko nee na yow yàlla yaay ki feeñ dara féeteew wala kaw yaay ki nëbbu da nga dara yeesu la intaha min al kawakib wax jox jeex na ci kawakib wa qaala fi risalati al-qushayriya ma nafsu mu ne boo demee ci risalatu al-qushayra wax na foofu ne الياخ baa فصل بنتو faslun buntu dégg nga lii de faslun lii de buntu la fa in qiila hal tajus ru'yatullahi bil absaari al karamati فالجواب عنه أن الأقوى في أنه لا يجوز بحصول إجماع عليه من سفكر نيو خنا ناك دغان نانيو غيس يالا سي بت تاي في جادينا سي بنت كرامه بو يالا جاغلال جامم من تونت بي موي لي غنا وير تنوت موي نه دغانو ndax deppo ولقد سمعت الإمام أبا بكر بن فورك يحكي عن ابن الحسن الشعري أنه قال في ذلك قولين في كتاب الرؤية الكبير من دجنا إمام أبا بكر دنگا فورك موي نتالينا دنگا واخ جو خامن نين كو ابن سي ابو الحسن الاشعري دنگا واخنا سي لولو ñaari wax ci téré gis bu mag bi intaha jeexna wax قلت وانا سي ابراهيم انا قلت من انا هو سي ابراهيم واخي رك قلت دانا واخ كيمتان جامونو دانا واخ لو جيرن تي ادينا جيرن تي الاخره من قلت من من باي من من وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ليله الاسراء وما جاز ان يكون معجزه للنبي يجوز ان يكون كرامه للولي الله اكبر تكبير الله اكبر بامباي نس رضي الله عنه مولانا شيخ ابراهيم نس مونه ويرنا يونتي الله محمد صلى الله عليه وسلم جسنا يالا في غودي غرانانغا تا ليب لو دغان jaadu ñeel moo gisa xar baax kémtaan ñeel yonantu jaadu na mu nekk karaama ñeel wala yàlla wala farqa baynahuma illa tahaddi ala saxiix al maqbul mu ne dara newul diggante karaama ak moo gisa moo gisa karaama lu may rek taxaddi yonantu sañ naa wax ne maa def lii xar baax la ana ku mën a def lii dégg nga kenn du ko mën a def ku may moom ci jamonoom waaye nag wulli yàlla sañu ta wax loolu day def rek yàlla may ko karaama waaye moom du wax du wax na maa def lii ku mën def lii na ko def du ci teg loolu du wax loolu dafay am teggin ak yàlla boo ko wane sax mu am kersa qaala bàyyi mu ne loolu dëppoo na ci ci lu wér ci luñ nangu qaala cheikh al imam al allaamatu muhammadul yadaali fi sharhi xaatimati tasawuf maanasu kullu ma kaana mojisatan li nabii jaasa an yakuna karamatan lil wadi bàyyi mu ne radiallahu anhu sëriñ bi ñuy wax al imam allaama fo xamaakoon bi foode bi ñu wax Muhammadul Yadaali wax na ci sara te nga xaatimatu tasawuf loo xam ne mi ngi nii may indi yax bi nee na kullu ma kaana mu'jizatan li nabi jaaza an yakuna karamatan li wali lépp loo xam ne nii nekkoon na di de eh, xar baax ñeel yonantu da nga dagan na eh, ñeel yonantu ci yonantu yi dagan na mu nekk karaama ñeel wëliw ci wëliw yàlla yi lu ko yàlla soobee wala farqa baynahuma illa tahaddi mun a dara newul seen diggante ci différence lu may tahaddi bi muy muy offensé bi muy wax ne man daal maa wax li ku mën a wax lii maa def lii ku mën a def lii ana ku mën a def lii bàkku waaw loolu rek mooy naf diggante bi mu ak waliyu hada wa saxiix wa mazhabul jumhur yi mooy lu wér te mooy yoonu mazhabu ñi gën a bëri wa wal faxr razi wal baydaawi wa nasafi wa tuusi wa imaamu alxaramayni wa ibnu salah wa ibnu furak wa tabari wa abu nasr ibnu qusayri wal iraqi wal yaafi ñum tudd ñi ñëpp daganal nañ ko Euh, saxal nañ ko lëng lëngale nañ ko dégg nga mooy mooy dégg nga alxazali ak faxru razi ak bay ak baydaawi ak nasafi ak tuusi ak imam haramain ak ibnu salah ibnu forak ak tabari ak abu nasr ibnu kuseyri ak al iraqi ak yaafi ak zarkashi ak ibnu jamaa dégg nga ñii ñëpp ay borom xam-xam yu mag lañ ay fóot ay wëlu yàlla yu mag lañ dëggal nañ lii lëngal nañ ko féete nañ ko kaw féetale nañ ko kaw nekk daf nañ ko muy li lëng dégg nga alhamdulilah wa min xujjatihim xadiidu ruba shasa axbara law axsama laa ilaa barraw mu ne bokk na ci seen tegtal bari na xadis bi saa wax ne bari na ku pënd dégg nga eh, dégg koo xam ne nii dafa dégg nga eh, dafa nekk koo xam ne nii karawam dafa cëq dégg nga dafa pënd sol ay sagar mu ne bu dogoo ci yàlla yàlla baaxee ko fa inna al ibrar al madkur amun fi kulli muqassamin bi min xiyaayil mawta wa xeyrihim taamin mu ne ibraar boobu nag yàlla eh, daganal na ko mën naa nekk ci lépp loo xam ne rek lu ñuy séddale la ci may moo xam dekkal nit ku dee la wala yu ni mel intaa jeex na wax jóge waqa minu jël jógee ci moom wa qaala al allaamatu al abiy fi ikmaali ikmaali ala fi ikmaali ikmaali an al qaraafi وإذا وإذا قبل وإذا قبل خبر الولي في الكرامة الخارقة العادة المخصصة للعلوم القطعية فكيف بتخصيص العموم الذي لا يفيد إلا الظن من سفك ننغو نجنة دنغ solo xibaaru waliyu في karaama bu باق baax ci aada da nga في ko jagleel ci xam-xami da nga في dog yi kon dégg nga loo xam ne ajuwut ci dégg nga eh, njortu qaala wa amma man iddaaw man laysa min ahlihi fa kal aasi wal muqassir fa innahu fa innaa nukadibu mu ne képp ko woote nag ci kudut ñoom nga xam ne bokkoo ci seen ñooñ dégg nga ki kuy mooy yàlla ak koo xam ne dafa gàttañlu mu ne kooku dañ koy weddi qaala fi lfuruq wa ruyatullahi taala ala ma yaliqu bihi fi nnawmi ju jawizunaha fi dunya kama yujawizuna fi laaxirati wax na ci téere boobu farruux ne gis yàlla subhanahu wa taala ci di dëppoog moom yàlla dégg nga ci màggaayam ci nelaw daganal nañ ko ci àddina comme nuñ ko daganale ci àlaxiram walakin man iddaa hadil xaala wa min xeyri hadiya min usaati wal muqassirin kadab naaw waaye képp ko oote xaal bi ci ñu dul ñooñam ci eh, moykat yi ak gàttañlukat yi dañ lay fenloo ومن ادعى من الاولياء المعني مع المعي معينين لا نكذب ونسلم له حاله من تمر كيف كو كو ولي يالا يي دنگ راني ا آه، دون ويتي دنگ لا جبل سحال نغو لغو لكو تعالى لا تدركوا الابصار لي الله وخ سبحانه وتعالى ن كو جيس في تاويلات من امنا تاويل تي نك وهو عموم يقبل التخصيص من المطر matal la goo نغو ne وإخبار الولي الموثوق بدينه المبرز في عدالته ويصلح لتقوية بعض التأويلات ولتخصيص هذا العام وخبر العدل مقبول في التخصيص العموم ونحن نقبل خبر الأولياء في وقوع الكرامات التي هي خوارق العادات المخصصة للعلوم القطعيات فكيف بتخصيص العمومات فكيف بتخصيص العمومات التي لا تفيد إلى ظن تامن بلفظي ولن دال اليوم نقول ناني وخي ولي الله دال ku ci jub daal tegu ci yoon dégg nga wali xibaar wali yàlla yi ñu wóolu dégg nga seen diine dégg nga ak seen ak maandute dégg nga ñu dëgëral seen i taawil ci tax si su am dañ koy nangu xabaru ku maandu bu ñu nangu tamit ci tax si su moom dañ koy nangu dañ ñun danañ nangu xabaru wali yàlla yi ci karaama yi nga xam ne mooy xar baax yi leen yàlla jagleel kon naka noonu tamit noonu nañu nangoo jagleel omum yi yi nga xam ne tànkuwul lu may ci njort rek intaa allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim maa ngi dénk sama bopp leen dénk ragal yàlla maandu njub bëgg Mawlana Cheikh Ibrahima Niass xidmaal Mawlana Cheikh Ibrahima Niass aaxiru daawaanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan